waaw ñu ko suñu yaakaar rek ëllëg sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñoo ngi dellusi nag tey ci ay fàttalikoom yi nga xam ne dañ ko ay jëf yu mu jëfoon ci lislaam muy jëf ju rëy yoo xam ne dara yitteelu ko woon lu dul rek e, topp e, wasilaam wu tedd woowu di Seydina Muhammad da yonent bi yàlla bi nga xam ne lépp lu yàlla bind rek yonent bi moo tax mu bind ko mu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ak gëm gi mu gëmoon yàlla te yëmalewu ko lenn ndigali suñu borom it yëmalewu ko woon ak lenn dawu ko boole bi kenn it nag ba tax na lu mu rëy rëy rek daanaka ci ñaar yooyu la tënk mu di liggéeyal yàlla jaamu yàlla di jaamu yàlla di liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa ci ci li dañ ci indi ay témoignages yoo xam ne dañ koo jëlee ci doomam ji tedd ji nga xam ne moo doon ñaareelu xalifaam mu di Serigne Fallou Mbacké beneen témoignage bi ci desaat ñu ngi koy jëlee ci sëtam bu tedd moo di sëriñ Moustapha Lo bu Cheikh Abdourahman ci topp gi nga xam ne daana ko topp jeexitalu maamam jooju nga xam ne dañ ko génne woon Sénégal yóbbu ko bitim réew mu di Gabon waaye dañuy tàmbali nag ci Touba ni nga xam ne noonu la ko sëriñ Touba sance ak ni nga xam ne noonu la taalife ci Matlabul Fawsayni warma yi nga xam ne moo war di dox ci biir Touba mu am solo lool ci ab jullit rawatina murit mu war koo xam ba mën a jariñu ci sëñ Touba ndax sëñ Touba nekkul koo xam ne da koy tudd wala nga sol mbubi ci saa la neexee bu la neexee nga sumu yar te dafay am loo xam ne si ci dereeti nit ki la koy def mu sax dàkk ci moom te du tàggoog moom ba àddina di tukki lu jar xam la te bu ñu ko temps bi mayee. ci serveur YouTube bi nga xam ne ci la ñuy su suñuy information pour jullit yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy déglu rawatina murid yi nga xam ne ñoo ñuy déglu suñu ko mayee danañ ci mën a développer lu bari kon nañ commencé ci sancu Touba pour nga xam war may Touba xam Touba mooy fan ak fan la ko sëñ bi jëlee ak lu tax mu sanc ko ak nu mu demee noonu dama jëlee ci sëtub sëriñ Touba mu di sëriñ Moustapha Lo mu wax ne. dañu tëbaski ca dëru salaam ba tëbaski ga am ñaar fukki fan sëriñ tubaa jekki jekki génn dëkk ba mu di dëru salaam dem di wëri fan la tubaa nekk booba àll bi nga xam ne moo wër Mbàkke ak àll bi nga xam ne moo wër dëru salaam booba menn mbindeef mu yàlla may kàttan nee na nga fay ñemee dox yow donc booba amul ndax rabi àll yi nga xam ne ñoo fa doon dëkke foofu di nekk ay ndenbent yu doy waar yoo xam ne kenn ku am fitu di génn yow kese ci àll bi amul booba noonu la fii Touba nekk mel ba mu génnee ñaar fukki fan yu mat sëkk waa Daaru Salaam def nañ ko yoo xamante si teguñu sëñ bu sëñ sëñ Touba bët ñu jaaxle lool sonn tiit ci ñàkk gis gi ko ñàkk a gis te ba muy dem tàgguwu leen waxu leen ne fii laa jëm waxu leen ne bi sàngam laay jëlu bañ toogee nag ba toogaay ba dalatul seen xel ca lañ mobilisé woo dajaloo ñoom ñépp ñu toll ci fukki nit ak juróom ndax fukki nit ak juróom benn la ñu waroon a doon waaye boobu maam Cheikh Ibrahima Fall mi leen waroon a complété pour ñu mat fukki nit ak juróom benn dafa xawoon a yaram wa dafa sutante woon ñu mobilisé wu nag ba toll ci fukki nit ak juróom waaye nag ñàkk mën a xam totaal bi kenn par kenn ci aw turam moo tax duñ mën a jaar ci ay tur waaye ñam xama ca gën a ràññee daal ba nga xam ne euh, doomam di doomam moom moo moo ci ab xam lay jaar ni moom laa ci gën a xam mu di sëriñ daam Abdourahman Lo moom bokk na ci fukki nit ak juróom sëñ Moustapha Lo nee na bi ñuy génn ñoom ne dañuy wëri sëñ Touba ñii ay yat lañ yor ñii yor ay jaasi ñii yor ay fetal lan jublu ca gànnaar yooyu mooy àll Tuuba la kenn ñu lul woon a dem di dox yow kese ci àll bi ndax rabi àll yi ñuy dajal waaye nag sëñ Tuuba jaral na leen ko ba tax na ñàkk gi ñu ko ñàkk gis moo tax ñu koy wëri yor gànnaar yooyu pour lu leen dogale lu leen mën a xañ wër gi ñuy wër sëñ Tuuba ñu mën a jëflante ak yow loolu moo sabab gànnaar yi ba ñuy dox di dox ci naaj wu tàng jër sëñ Moussa Lo nee na benn tukkulóor lañ dajal bu sant Dia ñu koy wax buubu Dia nee na mu ne leen lan ngeen di dox ci naaju tàng bi ak nii ngeen yore seen ngànnaay yeeg mbooloo mii ngeen doon ak lépp lan moo ko waral ñu nettali ko histoire bi ne ko ku tedd ki moo nu réer ñaar fukki fan gannaaw bi nu tëbaskee ba noppi ndax yow mii rëbbu ci àll bi tegoo ko fi bët buubu Dia ne leen man de déggu mbal bi bu set fi laay rëbbis waaye am na lu ma séen ci taatug màngo taatug garab mu toog. di nuru nit waaye nag xawma nag lu mu doon ñu ne ko comme que daal yow jot ngaa gis lu mel noonu ki wër lii nii wër nan nga wan loolee mooy lan ba xam ki nii wër la wala du ku nii wër noonu la ko sëriñ Moustapha nettalee buuba ja moom moo leen gindi nee bi buuba ja àndee fukki nit yeeg juróom ñuy dem di dem di dox ba seen sëñ bi mu toog ci taatu garab ak bépp mu ne leen ma nga dee toog ñu daal di mbooloo ma ne leen kon man maa ngi dellu ci sama yitte ñu ne ko jërëjëf jasaakumullah xayra jasaa bi mbooloo mi ñëwee ba agsi lañ seen sëñ Tuubaa mu toog ci taatu biir bi ñu daal di ñëw nuyoo daal di ñëw toog ñoom ñépp nekk ensemble sëriñ bi toog ab diir ne leen mën ngeen a jàll si bañ agsee la sëñ ba jëkk a def rek mooy dafa ree ne leen jaaxle ngeen defe naa ñu ne ko jaaxle na lool mu ne leen barab bii laa doon wër muy Touba damaa bëgg ngeen defaral ma fi kër mbooloo moomee doon wër sëñ Touba daal di futti ko ca saasa te ba ndigal la jubee takk seeni ndigg gor gattax gor yi laat gor yi xer sëñ bi nattal leen kër ga ba kër ga tolloog na ko sëñ Tuubaa soxla muy fii jumaa ji nekk tey yaatuwaayu kër gi mi ngi toll ci juróom benn fukki mètre guddaay bi toll ci juróom-ñeent fukki mètre muy quatre vingt soixante ñu defar ko nag ci diir boo xam ne toll na ci juróom-ñaari weer ba kër ga noppee la sëñ bi ne comme noppi na nag kër gi tudd naa ko Touba lii moo indi turu Touba bi bi mu duppee ci allasina amanu wa amilu saalihaati tuuba lahum wa husnul maab bi ci àll bi ci alxuraan waaye nag comme noppi nañ leen dellu Daaru Salaam nga jóge woon nag bu ñu ma jël njaboot gi ñu ñëw sanc si dëkk juróom ànd ak sëñ ñëw ba Daaru Salaam ñëw di ko siyaare ñu commencé ko ganale mu ne wool leen ma borom dëkk bi ni muy borom gaawaan maam Cheikh Anta booba mi ngi toll ci fukki at ak juróom mu ne ko duggal àllu mbàkke bi biñ sancee dëkk beeg léegi Daaru Salaam gi ak mbàkke biñ ko sancee ak léegi ñaata taalibe fi jébbalu nga wool ma leen ñoom ñépp ñu ñëw ci kër gi laata ñu dem ci sanc ba borom gaawaan jóg jëfi ndigal dem wër ta mbooloo mi ba ñëw mu dikk ne ko ñëw nañ de mu ne ko xaymaal xaymaal ma leen ba xam ci nu nu toll ñaata la mu dem xayma ko dikk ne juróom-ñeent fukki nit lañ ak juróom-ñeent juróom-ñeent fukki taalibe ak juróom-ñeent lañ sëñ Tuubaa ne ko soo ci bokkee ñaata lay doon mu ne ko téeméer mu ne ko rafaatal naa la taalibe yooyu ak dëkk bii di Daaru Salaam boole ko ku ñuy wax soxna Aminta Njaay Mbàkke ne ko nga toog fi wéttali borom gaawaan fii ci dëkk bi sëriñ ba daal di jël mbooloo ma ba mu fa bàyyee maam Cheikh Anta ndax bokkul ci ña doon sanc ca dëkk ba waaye da ko rafaatal la Daaru Salaam ak soxna soosu ma leen wax ne moo koy wéttali ak taalibe yi nga xam ne wër na leen ba ñëw ne naa la muy juróom-ñeent fukk ak juróom ak moom muy ñoom ñoo des ca fekk nag maam si Ibrahima Fall mi jagate woon ba ñëwal sëñ Tuubaa tane na wér na sax maanaam ñu boole ko ci nag te ñi ñuy yóbbaale ca sañcub Tuubaa ñu toll léegi ci fukki taalibe ak juróom-benn ba nu ñëwee ca sañc ba sëriñ bi dafa xaaj mbooloo mi fukki nit yeeg juróom-benn boo ko xaajee par ñeent ñaata lay doon ñeent sëñ Daam Abdourahman loo nga ci sëñ Ma Sàmba Jóob Saama nga sëñ Ibra Saara nga ca maam Cheikh Ibrahima Fall nga mu jël daara ji féete penku wetu penku bi daat ne sëñ Daam Abdourahman Lo dem fa jël sëñ Mandumbe Mbàkke boole koog moom jël wet ji féete gànnaar jox ko ma Masamba Diop Sam ak ñeenti tàll jël wet gi féete Saalum wet gi féete Saalum mu jël ko jox ko sañ Ibra Sarr ak ñeenti tàll jël wet gi féete soowu jox ko maam Cheikh Ibrahima Fall ak ñeenti taalibe kon xam nga wàllu liggéey ak wàllu développement Serigne Touba ko jëkk indi ci Sénégal noona la sance Daarul Xuddoos ca déwén sa mu dellu sanc dellu tegaat ca dërul Minan bi sëñ Basiiru nekk teg ca dërul Rahman léegi bi mu yooyu laata muy sanc dëru Marnaan mën na ci la sance daarul alimal xabir ñeenti dëkk yi ñoo mag daarul alimal xabir waaye daarul alimal xabir moo mag daarul manaan ndax daarul manaan sëñ Touba bi mu sancee daarul alimal xabir su masaan jógee daarul alimal xabir di dem Touba day jaar daarul manaan ndax booba suuf su rafet fu mu ko gis lu ca naal dara lu dul julli bi mu sancee daarul alimal xabir nag la daal di sanc daarul manaan Daaru Alimul Xabiir it sanc bi lenn la Sëriñ Tuubaa dafa woo mbooloo mi ba mu ñëw woo sëñ Masamba Diop Samb maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ Ibra Sarr sëñ Dame Abdourahmane Lo gannaaw bi nekkee ci sanc bi la leen woo ba ñëw mu ne leen bis naka tey yàlla gërëm na leen yonent bi gërëm leen man Ahmadou Bamba gërëm naa leen dama bëgg ngeen dellu ci seen kër yi nag nekk foofa nag di liggéey waaye nag bala ngeen dem kenn ku ne dama lay laaj lan nga gën a bëgg tàmbalee ko nag ci sëñ ma Diop Sarr sëñ Ibra Sarr ne ko Ibra Sarr gën a ne ko waxtu wu jot naay nekk ci li neex mu ne ko defal lees na la loolu sëñ Massamba Diop Sarr topp ci mu ne ko yow loo gën a bëgg mu ne ko waxtu wu jot daal li ma gën a bëgg yaa ma ko gën a xam te duma la ko wax waaye nag dinaa la jox ab tegtal tegtal bi ma la ciy jox mooy lool yi ma gën a bëgg te nga gën ma ko xam fexeel ba boo koy def ci man na ma defal kattanu malaayika ba sama bopp bi attan loolu la ko sëñ Massamba Diop wax mu ne ko defalees na la ñetteel bi di sëñ Daam Abdourahman Lo mu ne ko Abdourahman yow loo gën a bëgg mu ne ko li ma gën a bëgg képp ku sukk jébbalu ka jëkk a jébbalu kay mujj a bu santul mbàkke santul bu sant su defee loo xamee ne yàlla nar na ko tàbbal sabara na ma jël man abdourahman tàbbal ma sabara te jéggal taalibe boobu benn ñaareel ba mu ne ko ku bokk ak sama ndey néegum ndey képp ku ma bokkal néegum ndey ba mu dem safara ñetteel bi mooy ku bokk ak sama baay néegum ndey ba mu dem safara sëriñ Touba ne ko ñaar yi nga mujj a wax day defalees na la ko ndax da ngaa ñaan taxu ñaan dañ lay may waaye nag bi nga njëkk a wax nag ak njëg la dangaa ngaa jënd ñaanoo ndax da ne taal bi ba njëkk a jébbalu ba ca kay mujj a lu suñu borom ba mu koo tàbbal safara na la tàbbal safara te bàyyi taal bi soo ne woon bi ba njëkk a ba ca kay mujj a jébbalu su defee lu naqari suñu borom na ko suñu borom jéggal dees na la ko defal li nga defee ci sa néegum ndey ak sa néegum baay. waaye nag li njëkk gi mooy bis naka tey ba ba ngay wujju suñu borom deel jullee alxuraan ñaari rakka dees na la defal kattanu malaayika gi nga wax ba danga ko def ba pare te doo yëg na def nga dara dees na la garanti ba doo fi feebar doo fi wopp ba doo fi ba te doo fi faatu yi daa dafa su maam Cheikh Ibrahima Fall topp mu ne ko Ibrahima Fall yow bëgg a bëgg mu ne ko waxtu jot naa lay xëy di gën a bëgg mu ne ko defalees na la ko xam nga mu daal di yeewi ba mu leen yeewee nag Cheikh Ibra Fall dafa daal di jubali ndar na xam ne ne ndar mooy capitalu Sénégal te moo gën a neex a sàkkoo addi yi nga xam ne moom lañuy ñuy indil Serigne Touba moom fanaanul keroog sëñ ma Samba Diop Sam dem sanc Dëru Sam sëñ Ibra Sa euh, Sarr dem sanc Njaañ kër ndeyam teel bi yépp topp keroog sëñ Daam Abdourahman mii def jëfam juréy ji dafa fanaan ba bët set Sëriñ Tuubaa gis ko ci kër gi ne ko waa Abdourahman lan moo tax démbaloo ne sa morom bi sëñ ne ko fa su ma ko yéenee de ne ko lu ko waral mu ne ko bis danga maa yónnee ba nga ma yónnee bisu àjjuma ëllëg sa ci samedi ji ma dellu si ba ma ñëwee nga ne ma Abdourahmane yéen képp yàgg ngeen ci leen yónnee woon ma ne la lan ma yónnee woon dafi saasa la mat waaye nag damaa jaaroon méwnu ci sama mbokk mu nekk foofu bëggoon mu ñëw yërndu si fii waaye ba ma demee it daa am ngant ba ma la waxee loola nga ne ma boo wutoon ngant dafa am lu la fay wuutu démb démb ci yoor-yoor la ma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dikkal ne ma suñ borom nee na lim tegoon ci sama loxo teg na ko ci sa loxo yaa war a xetali mbindeef yi te mbindeef yi mëneesu leen a xetali ci am njàng kese rabbi asxaabaka bil imma wala turaddihim bi darsi faqat wa rabbi kullu waahidin minhum bima yaliqu bihi nam nettalee loola nag la euh, sëñ aadama gi jóg tàllal loxoom ne la jox naa la sama bopp addina ak ma Massamba Diop topp ci Ibra man mii ma ne la jox naa la sama bopp addina ak àllaxira waaw jógagul eh, addina bi demagul àllaxira may bëgg sama bopp dara mu ne ko yow soo waxoon leneen it tey sa bopp ndax yow bokkoog Ibra Fall ci man ma Massamba Diop Sam ci man bokkoog Ibra Sarr man ndax ñooñu dañ doon wut te nit nag buy wut fii barab dara su ko amee. dafay ku jóge woon yow nag dama laa moom yow sama alal la mu ne ko xam nga lu ma la moomee mu ne ko ma ci dimbalee ma jël ndax booba sëñ Tuubaa kenn du ne ko déedéet mu ne ko keroog yàlla sàkkee ruu yi ca malawul allah ruug aadama ga ba ca mujj ruu marché ne innama amruhu iza arada shay'an an yaqul lahu kun fa yakun daal leen ne daal di wax ba ruu yëpp nekk ya mën leen alastu bi rabbikum ruu sallallahu alayhi wa sallam gi ne ko balee aka kay moom kay moom moo njëkk nangu yàlla ne ko def naa la ngay gën ji mbindéef jël mulki ak malaku jox ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daa di wax yonent bi nag ne ko tànnal ci ruu yi saw xeet kuntum xayra ummatin uxrajat linnaas nee na yonent bi sëriñ ci waay nettali de yonent bi tànn ruu buy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ruu googu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn gannaaw ba ko yàlla ne tànnal ci ruu yi saw xeet Sëriñ Tuubaa nee na sama ruu moo jëkk a julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci gës bu ñu jëkk ja salli ala man qad aja baabi bala yowma alastu awwala qabla sawi takalumi Sëriñ Tuubaa ko jëkk def nee na ba ma xaacoo ba yëkkati bayit woowu rek la ma sallallahu alayhi wa sallam wax ne ma yow tamit tànnal ci ruu ruu yi ruugu la liggéeyal nee na ma xool ruu yëpp génn ruugu ma ci doy amul gudul sa gos yow Abdourahman man na yàlla tànn naa ruu gii mu ne ah boobu ruu kat du dund ruu gu nuy la buy juddu di te loolu laa dogal ci moom te koy faatu mënut a taxawu kenn ci dara Sëriñ Tuubaa nee na ma xam ne yàlla bi muy liggéey fokk jël sama ruux bi ma naroon a dund jébbal la ko yow Abdourahman ndax ak ruux Sëriñ Tuubaa ñi ngi ko àppoon ci lëkkum mi na diini laam fanweer kaaf ñaar fukk muy juróom fukk miim ñeent fukk muy juróom-ñeent mu jël ko jébbal ko Abdourahman kon lii laa la moose ndax maa tax ngay dund su ma la joxul woon sama ruur da ngay faatu nii la ko ko wax kon nag formel yoonu tànn kenn ba ñu nekkee ci sanc ba laata ñuy dem di sanc daru almal xabir booba la sëñ baara gane jamono ba ko sëñ tubaa joxe aw tur ba ngoon la wax sëñ daam abdourahman ne ko nañ ànd sanc daru almal xabir fa lañ ànd sañ ci dëkk ba sëñ ba topp ab diir xam nga ñaata nit la ñaata taalibe la sëñ Tuubaa njëkk yëkkati teg ko ci loxol sëñ Daba Dramane moo di sëñ ma Sàmba Mbàkke ak sëñ bu soobee ak euh, kii traité sëñ Omar Mbàkke geloon la moom la njëkk yëkkati teg ko ci loxo mu daam Abdourahmane Lo ca darul alimal xam gannaaw ban ko sañcee ba pare booba fekk na sëriñ ma sëñ Omar da koo dalal rek tax ko sëñ daam booba euh, euh, sëñ daam a jàngal ba man li man sëñ ma sàmba nag fekkoon na ko ñu jàngal waaye mu fekk na mukkalagul sëñ daam Abdourahmane Lo ca la sëñ Touba jële woon ak tub sariatul teg ko ci loxoom ne ko deel yow lii daal sant ne ko defee nii booba fekk na maam Cheikh Ibrahima Fall moom it yor ay daara waaye sëñ bi da koo wax ne ko ñëwal fii ci daara Alimul Xabir nga indi fi say daara pour maanaam euh, ànd ak sëñ Dame Abdourahmane Lo ci léegi bi nga xamee ne sëñ bu Buso yàlla dogal ñu jox ko àtte sariatul islam booba ci réew moo xam ne réewum lay la ne euh, sëñ Tuuba ci réew moomu la nekk te genn wàll gi di ay tubaab Serigne tubaa dafa mustafa seeni loi moom la Serigne Touba faale wax fariwul ay bi ci lim lay dëggal nga xam ne intérêt intérêt ci yow kooku la Serigne Touba dafa àtte mu bi nga xam ne yàlla santaane muy sariatul islam booba moo daan tax pour daan def lu dul sa noonu la di la dóor ay yari yoon wala bu ñu la waree rey ñu rey la ko kenn ku ko ñemee ci Sénégal ku dul Serigne Touba amul woon ñeneen ñi ci des nee nañ daa ci gannaaw ah, lu mu leen sant ñu def ko ba tax na bi Serigne bi nekkee ca loola ba jox ko Serigne Mbacke Bousso yàlla dogal ñu jël fi 1896 yóbbu ko Gabon bañ dem ba jamono ji nag bi ci la Serigne Mbacke Bousso génn dem sanci ah, Guédé xam nga da ngay dégg ñu naan na nangam nañ ko yóbbu Guédé loolu moo indi sabab boobu waaye sosuwaay ak ndigal la ma nga sosoo ari alimal abir ba mu weet sañ dane ko comme sëñ Tuubaa la santoon yari yoon yi booy sanc gen ko man ma des fii ayaga mi nga xam ne moom la war a doon sëñ jëlo sëñ Tuubaa jëloon na sëñ Fallu ak sëñ Moodu Mustafaa ci loxo sëñ Daam Abdurahmaan te nag da a daal rek moom moo leen àggaleel ba ñu man lépp ba ni sëñ bi ci géej li nga xamee yoon bi jiit sabab bi sëriñ Fallou Xof yaakaar naa médiatique yi médiatisé nañ ko ñu bari dégg nañ ko wàllu audio ak wàllu image loolu lépp am na nee na mi ngi sosoo nag ci gan ba nga xamee ne sëriñ Buuba yonent bi feeñu na ko ci dara jumaay Daaru Xudóos ji ne ko yan bi jege na dig bi jege na kon nag na nga fabu te gir te xam ne bii lenn lu lay lor ba ndax yaa na woon wàcc al arima arima amina wa kun bi si xafilam domina yaa kore gën jëkk a ca Touba ba nga xamee ne Serigne Touba maanaam dajale na mbooloo ma la leen wax ne yan bi jege si na noonu ne la fa toogee ñetti fan jóge fa dem sañ sanc dem Mbàkke Bari moom demee Mbàkke Bari nag fa la dajale woon ñetti téeméeri taalibe ya fa nekk fekk booba sëñ Fallu nee na dana woon siiw siiwa dem rek la def siiw rek am siiw daal la ko def nee na bi leen Mbàkke Bari nag ci la dajalee taalibe yi ñu toll ci ñetti téeméer ak lu topp mu mu wax leen ne damay dem ci liggéey bi waaye nag lépp lu waay liggéeyati andi jox ko maam Thierno mii nga xam ne moo fi nekk lu lépp lu jëmati ci eh, addiya yi wala day yi sëñ Fallu nee na booba fekk na mu ne ko siiw nee na am na ku ñuy wax ah, sàmbalaw bi sàmbalaw bi mu njaay nee na bi ñu nekkee ci jolof ji nee na bi nu nekkee ci jolof ji yàlla dogal ñuy waaj a dem di di yàlla dogal ñuy waaj muy waaj a sóobu ci liggéey bi nee na ku ñuy wax maam Abdou nekkoon ndar nee na tuuma ji ñuy jël tuuma ji di ko teg ci sëñ bi ci la tàggoo borom ndar ne ko dana bëgg nga yabal ma ma dem seeti sëñ bi ci ngànnaay yooyu ñuy wax naan am na ko pour bëgg a ñëw dal ci sa kaw maam Abdou Lo góor nóor ne ko demal ñëw boo dikkee loo gis nga wax ma ko booba sëñ bi moom dem rek la gis gisul leen lu dul dem ci liggéey sëñ Fallou nee na bi ñu toogee benn bis ci bis yi ci la Samba Law bi ñëw ànd ak mbooloo mu dul jeex ñu ñëw di siyaar si sëñ bi bi ñu dikkee nee na maam Thierno Ibra Faty la fekk ci buntu kër bi mu taw mu nuyoo ak moom mu ne ko lu doon say tànk mu ne ko sëñ Touba laa soxla mu dem ci sëñ Touba wax ko ko mu ne ko kooku la mu ne ko Samba Law mu ne ko nekko ko naag si fekk fas yi te ñëw nu waxtaan te ne nag laaj ko ba xam lan mooy ay tànkam nag mu ne ko dafay jaar rek fekk ma ma toog mu ñëw di ma nuyu si waaye sama gan la mu ne ko na ñëw fekk maam Abdoulaye moom na borom ndar ba ñëw ba sëñ bi moom moo fi waaye moom dañ composé di xool euh, ak lu sëñ bi pour ñu mën a ñëw jàpp sëñ bi not ko moo taxoon mu ñëw lépp bi bi ñëwee ak mbooloom jolof gi mu àndal gépp bari waay ga fa la fekk maam Abdou mu toog xam nga mooy agent secret wu ñun sëñ Fallu nee na bu ñëwee ngan gudul ko jinne nee defal nañ ko sàmbalaw bi bañ toog ba sàmbalaw bi génn tàggoo ne day ñibbi ànd na mbooloo ma dem nee na maamam ñuy wax moom sëñ Fallu Mamour Fall nee na moom tamit ñëw na day siyaare sëñ bi ànd ak mbooloo mu dul jeex nee lépp maa ngi doon toog di seetaan di gis mbooloo mi na moom it ba mu toogee ñu ganale ko ngan gu raw gan ganale woon sàmbalaw be nee na sëñ bi bañ toogee ba ca ngoon maamam joojee daal di gont nag sëñ bi maa ngi dellu ca kër bi sëñ bi ñaanal ko mu dem lépp maam Abdou ngi toog di siiwaay bañ fanaanee ba ca suba sa nag maam Abdou ci la tàggoo sëñ bi ne ko nag maa ngi ñëw dellu mu ne ko baax na daal ko yeewi moom accès fekk booba sàmbalaw bi amoon na benn tampon bu mu daan tamponné leetar yi courrier yi nga xam ne moom la daan envoyé fu mu ko mën a yóbbu tampon ba nag nee na daa yàqu woon nee na mu yóbbu ko ndar doon ko defarlu te gouverneur ndar la nekk maam Abdou tey la fi départ ba mu àggee nee na fa ñuy defaree tampon ya fa la maam Abdou jubale ba mu àggee nee na mu fekk tampon yi ñu teg ko mu ne ana ko moom bii ana moom bii ana ko moom bii ba bu sàmbalaw ñu ne ko di ko mu ne dafay yàqu ko doon defar si mu ne ko baax na am waaw baax na kay nee na gis aw këyit boo xam ne si wu deful dara nee mu jël ko teg ci tampon bi ne nii rek mu daal di marqué mel na ku ci amul soxla te këyit ba nee na bi bi ba muy dem la jël kayit wu dugal ci poosam ba mu mu bind leetar góornóor ne ko yow góornóor man Samba Lawbe maag sëñ Touba defarul am nañ mbooloo mu takk ci sa kaw lañ jëm pour fank sa loolu la def si këyit ba maamu doo bind de nee na bi mu ko defee nee na mu bindal ko ci ne ko lu mel nii nag sama mag ja waxoon na la ko muy alburi waaye moom booba dafa bëggoon a daw moo tax mu def ko ndax moom dalaa waxoon yow buuru ndar borom ndar fekk si ma fii ci jolof bi sàngam boo ñëwee danaa def nangam wax wax ju ñun nag man nag maag sëñ Tuubaa ñooy si ci sa kaw daal di jël leetar ba tàmbali ko fekk tampoo baa nga ca mu yónnee ko courrier courrier daal koy indi kër gouverneur ba gouverneur xëyee ba xool leetar bi dana ah bibu leetar kat maam doo ko wallu mi maam ëb mu ñëw mën a fa ah kii kat yaa ko war a jàng kon nag jàng ko nee na mu ne ko yaa ko war a jàng jàng ko fekk moo ko bindoon nee na bi nga xamee ne nag léegi maanaam maam Abdou dajji na ko nee na mu jaar fam jaaroon rek wax wax ju ñagas da nga xam ne moom la waxoon nee na ba mu daanelee góornóor ne ko waaw ah lii nag loo ci xam mu ne ko ah man ci dara lu dul dem jàppi leen mu ko ah yow kii nga jóge ci kër ga ne ma mbooloo maa ngi fay ñëw yor arme yor lii barki démb woon jaay ndax yaakaar nga ne des na ko mën a jàpp mu a ko ah waaw man de boo ma boo ma jox ndigal ma koy jàpp mu boole ko ay espèces policiers gendarmerie force de sécurité bu nekk mu boole ko maam Abdou pour ñu jàppi sëñ Touba te lañ jaare woon jeewal keroog ba ñu dikkaatee ca semaine ba ànd ak mbooloo ma bi ñëwee ba jeewal dafa maam Abdou dafa bàyyi cortège bi mu àndaloon bépp teq ca benn gendarme boo xam ne yëre wolof la sol ne ko nañ dem nag àgg ca Mbàkke bari bu ñu demee nag jéem a seet solution bu ne def bu mën a jàpp sëñ ba mu agsee ba nuyoo maam Thierno delluwaat sëñ Tuubaa ne ko ah maam Abdou Kadir delsi na mu ne ko wol ma ko ñëw lu doon i tàngam mu ñëw mu a ko ah dañ ma lay woloo de borom daal daal moom la woloo léegi nag nee na nga daa bëgg nga ñëw léegi sëñ Tuubaa bàyyi ko fa ba mu yàgg mu dem ca jàkka ja jumaa ja di julli ba mu jullee ba pare laata muy dikk nee na fekk na maam Abdou di ñaxtu di wax wax yu ñagas ndax yàkkamti rek sëñ bi dem te fekk na sëñ boobu dana ko siiw sëñ Fallu nee na booba mi ngi taxaw moom sëñ Modou Moustapha nekkoon ay tur tànk nee na biñu dagan bi fekk nañu takkal sëñ bi fas wi tegal ko ci gawar gi tegal ko ci lépp ñu taxaw nii maag si Ahmadou Moustapha bi mu dikkee maam Abdou daa di ànd ak moom mu jël ab loxoom teg ko ci seen ñaari bopp yi ne bàyyi naa leen ak yàlla bàyyi naa leen ak yonent bi dénk naa leen seen euh, bàyyi cerno la gën a yéeme rek ci convocation convocation boo xam ne yow dañ na la kaay wuy si tey jii kun ko defoon tey sànq ma wala woon tey bala ngaa am jàmm da nga te xel ngay demee sëñ bi daa dem ba jeewal mu ne leen tey mënumaa dem fokk ma ñu daal di ànd fanaan xëy di demate ba tolloog leen damay yenn mënumaa dem ba mu defee noonu ba ca ëllëg sa fekk na booba eh, eh, dañoo dajale ay sëriñ su bare mais nag ñëpp duñu ay sénégalais 84 marabout ci Afrique yi nga xam ne ñoom la France colonisé ñoom lañ dajale pour andi leen kër gouverneur pour éliminer seenub yëngatu Serigne Touba ci 84 marabout yi la bokk la sababu wooga it mooy lépp luy lislaam lu ñu leen sant ne bàyyi leen ko da ngeen koy bàyyi wedd yàlla bu ma sëkk bind ko ci këyit na bañ dajalee 84 marabout yi ba sëñ ba accès moom dafa daal di julli rek kàmbar julli nuyuwul kenn ba mu ñu daal di numéroté sëriñ si moom mu nekkoon position 4 ba 84 ya mag ñu ne dañuy rappel laata ñu rappel nag dañ leen di wax li tax ñu woo leen lañ bind mooy yéen sëriñ si seen yëngatu dafa bari dañoo bëgg ngeen dakkal yëngatu bi te ngeen xam ne nag nun noo fi nekk lu leen yàlla sant bu ñu leen ko teree da ngeen koy bàyyi lu leen yàlla digal it noonu bu ñu leen ko teree dangeen koy bàyyi loolu lañ def ca note ba ne léegi nag ku ko ci nangoo signé ñu bàyyi la nga dem sa kër ku ko nanguwul a signé nag yaay sunu adversaire yaay anti bu France daal léegi ban defee noona nag ba yàlla dogalee léegi ñu def noona léegi ca lañ euh, daal di numéro un numéro un daal di ñëw ñu ne ko signal mu daal di xool kayit bi bi mu xoolee kayit bi yaa ngi dégg daal gis liñ ci bind mu ne du signé ñu daal koy rey ci tàng tàng bi pour tiital ñi ci des numéro de ñëwal numéro de ñëw ñu ne ko signal mu ne du signé ñu rey ci kanamu nit ñi tiital leen numéro 3 numéro 3 ñëwul ñu ne ko signal mu ne signal ñu lakk ko rey ko jël paaka bi takkal ko deret ñëw teg ko ci kaw taabal ji nga sëñ Tuubaa ci topp mooy numéro 4 ñu ne ko numéro 4 ñëwul numéro 4 daal di ñëw bind la huwa allahu ahadun allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad ndekk lañ ko jël daal ko yóbbu fële biñ ko yóbbee léegi ci lañ ko boolee nag euh, gaynde gi nga xam ne moom moo nekkoon. ci benn néeg boo xam ne si fa lañ ko dugal xiifal ko ba mu sonn ñu daal di jël sëñ Touba daal koy booleeg gaynde gi gaynde gi daal di ñëw waaf ci wetam bi gi ñëwee waaf ci wetam nag gis ne ñu gis ne sëñ Touba nag léegi moom gis nañ ne léegi moom dara jotu ko te ñu njëkk ñu rey nañ leen léegi nag ci lañ continuer sunu rappel na léegi buñ ko rey waaye nañ continuer rappel ba ñeneen ñi jeex ba xam ñenn ñi ñoo sëñ Touba ñooy bokk wala ñeneen ñi ñoo ngi ñi rey a bokk. xam nga gaynde ki dañ ko woo rek biñ biñ biñ biñ ko signaloo mu bañ rek dañoo jël sëñ Tuubaa daal di yóbbu ci gaynde gi ci wetam léegi nag ñu ne buñ ko rey nañ continuer rappel bi ba xam dana am ñu mel ne moom wala bu mel ne moom it ñu rey ñi ci des ñu ne numéro 5 ñëwul daal di jël paaka bi ñu reyoon troisième bi taxal ko de teg ci ko signal mu daal di xool daal di firmaane numéro 6 ba numéro yi jeex na ba ñëpp signé léegi nañ ñu gis ne ñett ñi ko jiitu si signé rey nañ leen moom nanguwut a signé boole nañ ko gaynde gi mu waat ci wetam ca lañ nag téye sëñ bi bàyyi foofu fa ba mois de septembre ñu jëlee ko ndar indi ko dakaar pour war ko génne réew mi fekk booba conseil privé dajaloo nag ba waxtaan ci fan nañu war a yóbbu sëñ bi réew muñ tudd rek nga ne moom réew buñ ko fa yóbbu ndax foofu moom ay jullit dafa nekk te buñ ko fa yóbboo jullit yi dañuy màbbu ñëw te kon loolu du ñu arrangé bañ xalaat ba nekk ci lañ ko yóbboo Gabon ndax foofu ay nit ñu sowaas ñoo fa nekk ñoo xam ne gëmuñu dara bëgguñu dara foofu buñ ko fa yóbboo moom du baax noonu lañ ko yóbboo Gabon bañ ko indee Dakar bañ koy indi keroog Dakar pour war ko yóbbu bis boobu sëñ bi dafa woor ba mu dikkee ñaari gendarme ko jàpp yóbbu ko ca néeg ba nga xam ne fa lañ ko defoon ca Dakar néeg boobu boo demee mi ngi ci ñaay cokkeer euh, foofu nga xam ne euh, fi la lébu yi dëkk ci wetu kër sëñ Modou Moustapha gi moom kër sëñ Modou Moustapha gi sax foofu laa yow dégg nga bañ ko fa sëñ bi nee na tar tar yama njëkk a gis ci wàccaayu dem gi rek foofa laa ko jëkk a gis wala bind woon kasi taalif bayit bi mu naan isa sakatu salikal mabita wa salikal lamina wa subuta foofa la ko sëñ ba taalif woon boof nee na it fa la ko soxna jaara feeñoo ne ko gisagoo dara de ndax ba nga gënee jamono yaa wax ma dégg sama nopp ne yàlla danaa la jaamu jaamu bu la kenn musta jaamu yonent bi danaa la liggéeyal liggéeyal bu la kenn musta liggéeyal yow yaa ko wax léegi nag xamal ne yaa jaayante gisa ko dara sëñ Tuubaa nee nag ca la mel ne laa sole woon buub moo xam ne si dañ ma ko sumil nag ma engagé parce que bi nga xam ne mooy jiitu lébu yi bañ xamee ne léegi dañoo jàpp bis pour war a yóbbu sëñ bi Gabon ak mététal gi ñu koy mététal mu ñeewante ko tax mu woo commandant cercle bi ne ko damaa bëgg nga waxal ma góornóor ne ko comme sëñ bi da di xaar bis ñëw ngeen teg ko ci bato bi yóbbu ko naa bëgg ngeen jox ma ko ba commendataire bi demee wax ko góornóor góornóor dana ko ah ki am audience def loolu de xanaa boroomu cër la waaye nag lu ñu tudd ko ba xam ban cër la mu dikk ne ko jaraaf yi la du sàndarma lébu yi nekk fii yépp mooy seen njiit fukki pénc ak ñaar yi wër cëddeen yépp mooy seen mooy seen njiit mu ne ko kon da nga koy woo mu ñëw su nangoo jël bakkanam tay na ko comme ça bu ñu ko joxee sëñ bi bu sëñ bi dawee ñu jàpp ko rey ko ñun danañ mën a jël sëñ bi jox ko ñu woo Ibra wax ko ko mu ne bu sëñ bi dawee jàpp leen ma ngeen rey noonu lañ jëlee sëñ bi jox ko ko mu indi ko ci këram gi bi mu ko indee ci kër gi nag la gën a yéeme mooy waxtu tisbaar la ko fi indi xuma waxtu takkusaan ba mu ko indee nee na daa dugg ci lébu yi ci maaman maaman yi ñu wut ay xar fa fuufa pour bëgg ñu gëlëmal ñi nga xam ne dañuy jàpp ci sëñ bi ba bu ñu dikkee du ñu fi mën a fekk sëñ bi pour yërëm bu ko yërëm ñeewante bu ko yeewante ba mu dikkee waxtu timis la ñëw indi njabar ga commencé wër koñ yi kër gi di ko fa suul sëñ mu sëñ sëñ sëñ Tuubaa ci moom moo ko wool boppam ba mu ñëw ba mu ñëw mu ne ko li ngay def da xam naa waaye nag matu ko bis sàngam bu may dem yaa may gunge su may ñëw yaa may teew xelam Ibra Binta Gay daal di dal sëñ bi yëkkati mbubb jox ko yëkkati dokk jox ko yëkkati sajaada jox ko bis ba ñuy woo sëñ Tuubaa mu toll ci la 21 septembre 1896. Ibra Binta Gueye moo ko gunge bañ dugal ko ci bato bi 1902 bi muy ñëw ci mois de novembre Ibra Binta Gueye moo ko gàttalu ca port ñu di jël sëñ bi dugal ko ci gat bato bi nag pour bëgg koo sànki fekk juboon nañ ci yóbbu ko Gabon gannaaw tisbaar ban demee ba waxtu julli jot mu xool ne waxtu julli jot na ci la fas yéene jàpp ba set ñëw wéetal suñu borom bañ ko xoolee commandant bi daal di ñëw ne ko bato bi mënoo cee julli ndax suñ bato la te defaruñ ko pour julli ndax duñ ay jullit te yaa waxoon ne doo tooñ sa borom doo tooñ sa soo jullee da nga soo julliwul da nga tooñ sa borom Sëriñ Tuubaa daan na ko ah danaa julli de mu toog ba farata kii bi jeex waxtu wi jeex mu bëgg julli ñu tere ko mu toog nag ba darura yi bëgg a jeex mu xam ne nag léegi fayafe des mu ne sama bakkan bii nag du ma gënal faat waxtu suñu borom noona la jële der bi sànni ko ci géej gi dem daw topp ko julli fa ñaari rakka ndax booba mu saafir la ba jullee ñaari rakka yi nag foofu mu dama fi am tënk bu ma lay jox ci ñaar mooy seconde bu mu def ca ca ñaari rakka yàlla fay na ko ko tey jii fukki fukki juma waxuma jàkk de fukki juma ci Sénégal seconde bu mu fa def ci ñaar ci julli gën gi ñu ko doon tere ci biir bata bi ba mu jaral ko sànni der bi yàlla fayee na ko ci seconde bu ne fay na ko ci dix juma ci li teewam te xam nga julli day yàgg surtout julli ci wàllu yi julli baax ñooñu ndax la ñuy def lépp du bokk ak suñu julli yi ba mu paree nag ci la leme der bi dox ci ndox me tànkam ba agsi sànni der bi ci kaw bata bi tàllal loxoom ñu nekk ci kaw bata bi daal di jàpp loxo yi daal di daal koy yéegee ci kaw foofa la ko commandant bi di xoole ne ko yaa fi gën a gore yaa fi ëpp fit yaa fi gën a gëm yàlla ndax aw fit ah, ah, ah, gëm yàlla aggul ci ñu tere la suñu géej gi suñu gaal gi ne doo ci julli nga dem sànni der bi loolu gëm yàlla aggu fi fit it aggul ci bënu géej gi ni mu mel nga dem di jël ab der di sànni daw di ko topp gore it aggul ci la la fa tëyee ba nga julli ñaara rakka soo ci jàppoon mu yóbbu la te duñ la lii la njëkk a seeral sëñ Tuubaa mooy biñ ko jëkk te ci yoon wi lañ ko teg bato ba daal di jaar Brazzaville ñëw euh, euh, Gabon bi mu agsee góornóoru Gabon moo yëgal góornóoru Brazzaville ne ko sëriñ bi agsi mu ne ko yóbbu ko ca caserne bi ngeen denc ko fi ba ñu jublu suñu biram ñu yóbbu ko ca caserne ba nga xam ne fa la militaire yi nekk fa sëriñ bi dajalee ay doj julli fa damay julli bor yi muy war a fay lawraat yi muy def ak yëpp ba militaire yi xëyee bañ fekkee doj yi sëñ ba dajale ko dañ koo tasaare wexu sëñ bi daal di ànduwaat ba fee ñu def mosquée centrale ba mosquée centrale ba fee ñu ko def ca Gabon fa la sëñ ba toog nag di julli def fa la nekkoon sanc ko ba yàlla dogal nag benn bis nag ñu ne nañ jublu ci nañ ko faat moo waral montagne sent bi ñu ko yóbbu woon muy benn eh, kii bu nekk foofu montagne bu nekk foofu ca lañ bindee ay leetar jox ko waa Gabon ñu ne foofu ne dañuy yóbbu sëñ bi bis sàngam bisub képp ku bëgg a fekke fu ñu koy faate na nga ñëw seetaan ndax booba lu ñu koy def dañuy wax ku bëgg a seetaan ñëwal bis boobee ku ñuy wax bande Touré bande Touré nekkoon ab entrepreneur fa la ko fekk moo ko nettali sëriñ Moustapha Lo ba mu fa demee ne ko man mii ci ña doon seetaani bisub talaata ba ca montagne seen ci laa bokk montagne ma ku ñuy wax euh, Icaan Waane moo fa nekkoon moo doon jiital làmb ya fa nekk nee na bi ñu ko jàppee bisub talaata yóbbu ko fukki officier ak ñaar lañ ko booleel ak ki leen di jox ordre muy fukki officier ak ñett nee na ñu jàpp ko ci garab gi maraxale ko yeew ko yeew a yeew a yeew ba sëñ bi kenn gisatul ci yére yi dara ñu jox leen kenn ku ne ak fetal wala ak fet ne leen diir leen barab sàngam su ma joxee ordre rek tiiree doo leen nee na bi ñu joxee ordre rek bañ tiiree amu bànda turee na amu ci lu dul xool rek gis ñi doon tiiree ñépp suuf loolu bànda sëñ Tuubaa wax na ko wahabalil wahabu fii sulaasa maa yox julul asrata wa salaasa aji may ji may na ma bisub talaata ci laa toroxale fukki office yi ak ñett ba mu defee loolu Banda Touré nee na ba sëñ ba tekki ko taxaw ne leen ma ñëw jox ko sama bopp ne ko jox naa la sama bopp addina ak àllaaxira mu tudde ma Abdoulahi Touré ba nga xamee ne jógee nañ ci lu boobu ñu ko ñu ko teg mu yeew garab bi ñu dem gasaat kàmb bu xóot teg ci ay tagar ak i bant lay layal suuf teg ca kaw jaar teg sëñ ba ci kaw sëñ ba màbb dugg ci suuf ñu maasale ko war ci kaw di dëggaate di dagg ay lu doy wax pax moomee sëñ Moustapha Lo nee na sëriñ Touba wëll yu wu amul tomb ko suñ borom fekk ko ca pax ma ne ko dama laa bëgg a dimbali waaye ku ñëw da lay wax doxal dem yàlla mi ma ko teg moo ko gën a mën a teg ci yow kon nag bamaal moom nee na ku ñuy wax sëñ Abdou Xaadir Jaylaani nee na moo jiitu ca kamb pax ma waaye bu ñëwee rek mun a ko demal Moxtaar Alwalid bi nga xam ne naaru gànnaara doon ab sëriñ nee laaj na sëñ Tuubaa ne ko ah, ila nasrina xat saarat wa ma xuyuurihim wa xaabar ah, ida minhum maalo ila salam ba ñu la yeewee ca garab ga waa ahlu badar ñoo ñëwoon doon la sotle si wala nu mu noonu nee na sëriñ Tuubaa ne ko waa ahlu badar xeex nañ euh, faatu nañ ca xeex ba waaye malaaka ya doon sotle si ñoo ñëwoon doon ma sotle si ba tax bañ ma jóoree bali fetal yekki euh, ñëwoon najawtu min fitanil ahdaay il xasaduni bil madafihi turran wa sakakin xam nga banda ture fetal yi la wax waaye sëñ Tuubaa daa ñëw ne aji musle ji musal na ma ci fukki nit yeeg ñett yi dañ ma doon diir ay paaka ak di ma diir ay bali fetal turran wa sakakin la sëriñ Tuubaa nee na ba nga xamee ne euh, léegi sëñ kii sëñ kii wax na ko sëñ euh, Ablaye Jaxate sëñ Amsatu Jaxate nee na wax na ko ne laaj na sëñ Touba ne ko keroog ba nga xamee ne euh, dugal na waaw ba mu ko ne léegi ba ma duggee ca pax ma ku ñuy wax ab sëñ Abdou Xaadir Jeylaani moo jëkk ñëw waaye bu ñëwee dama na ko doxante nee na amu ci lu dul xool rek gis ko ne càq ci mbag yi génnee ko ba mu ko génnee ci bitim pax mi mu xool ko muy soxna jaar ñu ne nañ ko delloo yar nag biir léegi nag gouverneur joxe na ordre ne bu ko kenn jéem a tere waaye nañ ko yóbbu di ko fitnaal waaye Sénégal bu mu fa dellu ca lañ ko yóbboo nag téye ko fa ab diir ca lañ ko jàllalee nag dëkk bu ne wax Lambaréné Lambaréné fa la toogee woon ca mango ga juróomi at yoo xam si kenn gisul lum lekk kenn gisul lum naan ci taatam mango lañ ko teg te bañ jubee dëkk ba un kilomètre lañ ko fa bàyyi moo tax mosoo gis ci xasida yi muy bind ba bind Lambaréné xam lu muy bind galwaa lay bind ndax xam nga nan mu ñaama galwaa galwaa mooy race bi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee Lambaréné waaye comme fi mu nekk ci tefes gi la te nit ñaa ko fiy fekk si loolu moo tax xind galwaa wa baabili baabili ñoom it ab race la boo xam si maa yomb lañ nekk léegi nag ñooñu moo tax galwaa bi nga gis waaye doo gis mu bind ko foofa yëpp istiwaar dafay euh, dikkat mango ga ban nga fa yóbbu ak kilomètre bañ daan di dëkk ba bàyyi ko fa lan ci jublu mooy pour rabi àll yi naan si ci dex gi bu nu ñëwee mën ko fee fekk lekk ko looloo tax ñu yóbbu ko ci taatu mango ga foofa it sëñ Moustapha Lo nee na bi may dox ba gëstu mbirum sëñ Tuubaa ba ñëw Banda Touré moomee Abdou Khadir Dramé moo ko wax ne ko reena goo ca préfecture ba la doon liggéeyee jamono joojee ñu fay indi sëñ Tuubaa faatu na nag waaye boo demee doom jàng fa loo bëgg a xam ci sëñ Tuubaa boo ñëwee mu xamal la sëñ Moustapha Lo nee na bi ma dikkee ba ba labré ne doomi reenaagoo ji ñu koy wax père reenaagoo nee na moom laa ko fekk mu ne ma man de bi ñuy indi euh, sëñ Tuubaa fii sama bàyyi nee na booba dama doon nàmp booba nga ne ko ndaw laa ci kanamu sëñ bi laa juddoo waaye nee sama bàyyi nee na ma ca taatu mango gi lañ ko tegoon nee na bañ ko fa tegee sama bi mooy rab yi ñëw lekk ko nee na da weer wu ne gouvernement France dana ko fay fukki dërëm yi nguur ñaar fukki dërëm fukki dërëm yi maanaam par douze mu nekk ñaata six cent francs fukki dërëm nee na waaye buñ feree fayee sëñ bi xaalis bi rek da koy sànniwaat nee na booba maa ngi liggéey ci préfecture ba yor baar di jaay ay sàngara yooyu nee na ma daal di jël sama baar bi ñëw ba ci fi sëñ bi nekk ma samp ko fi nee na sama baay nee na bis bu yàlla sàkk it euh, commandant bi dana ñëw xool si ba xam rabi àll yi lekk nañ ko wala lekk nee na fukki dërëm yi ñu ko fay da koy sànni waaye nee na bu ko sànnee dama koy for nee sama baay nee ba benn bis ma toog gis sëñ bi di mbaaral boppam daggi bantam di mbaaral boppam di loxo boppam ba mbaaree ba pare nee na bi yàlla ji jekki-jekki indi fa taw bu bari ak ngelaw nee na mu fil mbaar mi taw foofu ba tooy xëpp nee na ma yërëm ko nag ne xaaral ma ñëw seeti ko moom te reenaa boobu mooy wax ne nee baayam moo ko moo def loolu nee na bi ma ñëwee fekk ko mun teg nii ci taatu mango bi wet fi laa ne ko nag nan dem ci sama kër ma abal la sama waañ ma nga fanaan ci ba bët li metti na sëñ Touba nangul ko loola mu ànd ak reenaagoo ñëw ba mu jox ko waañ wi waaye la yéeme ca waañam mooy dóom bi bant yi taq-taq yi sëñ bee ko doon baleel boppam ba mu set mu teg wëlis yi commencé jaamu yàlla ba bët setee sëñ ba dellu ca kàttu màngo nee na bàyyam daal di wax yaayam ne ko nan dem jàppale ko ci mbaal mi mbaar la ko fañ demee ba jub sëñ bi sëñ bi fottasu ko ne ko taxawal mu taxaw mu ne ko na soxna si yow foofu te yow nga agsi nee na bi bàyyam ñëwee di ko mbaarle contrôle fekk fa nee na jàpp bàyyam tëj na ko fukki weer ak ñaar yoo xam ne fii dimbali gëm doon dimbali ci sëñ ba ca mbaar maa tax ñu jàpp ko ñu ne ko ñu jàpp ne nag li tax mu koy dimbali fukki dërëm yi muy yi ñu koy fay mu di ko for lañ jàpp ne moo tax mu koy dimbali ñoom ñu ne comme da koy sànni da koo xeeb nañ ko dajale ñu dajale ko ba mat am at muy 600 francs gordu commandant bi yërëf dëkk bi comme li ñuy wax fii si daako daal ne ko daal di koy fas ci aw aw kocc daal di dikk ba jub sëñ bi dikk na ko ah noonu kat gouvernement france nu yoon yi ndax gis nañ ne bu ñu la fayee da koy sànni te amuñu droit bañ la ko fay amuñu droit téye ko ñu yaakaar ne da ko koo xeeb léegi nag dajale nañ ko ba mat na lii ca la ko jël ne ko jayi sëñ bi sëñ bi tëgg ko ko ci jëbi deret de sànni moo ko jëkk a def ab commando ci ci ci lambré bi ba mu ko defee commanda ba daa euh, séddaku ba dafa dem euh, porte plainte ko te tribunalu militaire ba nekk Njole kon yóbbu woon ba ñu convoqué sëñ bi diggante ba xam nga distance ba ñaata la cinquante kilomètres ba sëñ bay dem di wuy ji tribunal ba daa dox ak tànkam dara yóbbu commandeur ba nag bañ demee ba àtte ba pare sëñ ba dellusi yaat na lambaree na waaye commandeur ba dellusiwul si naa ko ba dellusiwul ci dëkk temps yooyu nag kuñ bëgg a nommé commandeur rek nga ne àddina tukki na lii lii kay moom du ma dugg ba saay-saay bu bon boobu nga xam ne ab sénégalais la woon mu ñu koy wax duudu ma mbay dégg nga turam moo jël prix en charge man buñ ma joxee sëñ bi danaa la jënd ay mbiram ñu ne ko nag ko nommé nañ la commando Reynaago mooy nettali de doomi Reynaago mooy nettali li nga xam ne moom la ko bàyyam wax nee na biñ jëlee Duudu Ba Mbay nommé ko bi mu yore Sida koo dëkk bi nee na liggéey bu dul boobu jinne wala ñaawteef bu dul boobu jinne nee na na ko sëñ Tuubaa àgg na ci di ko baleloo di ko rooseloo ay garab di ko def lu nekk nee na nee na sëñ bi def nee na eh, Duudu Ba Mbay defloo na ko ba benn bis nag muy ku bëgg moom duudu ma mbay ànd ak planto bi nekkoon nañ dem rëbbi yor fetal gi bi ñu demee mu jaawale rab bi rey rey rey planto bi mu agsi nag ñu ne ko ah yow li nga def moom danger la ci lañ ko wàccee nga xam ne daal mujj daa torox ba mujj mu dof mujj muy dem joor sax dégg naa di ko lekka ndax alko ba mu alko ba mu faatoo Conakry lañ ko yóbbu duudu ma mbay léegi nag xam nga kee dóor na ko dara mujj ci kii fetal la nit dof na dara mujj ci ñu gis nag dëkk baa koy commencé war man te tumuraanke taxoon yóbbu ko fa ca lañ ko évacué nag yóbbu ko Mayomba waaye foofu nag am na taxaw seetlu ci ñun suñu taxawaay ci yoonu murit ñu mën cee roy jëmm ju baax a baax a muy sëñ ma Lamine Diop Dagana xam nga mag yi sëñ Tuubaa ay mag ñu baax sëñ ma Lamine Diop Dagana benn bis la toog benn talaata ca kooki guy woo soxna yi ba mu ñëw mën a leen yeewi naa leen ndax ku tedd ki réer na ma taxuma nekk dama koy wëri taxuma daa gisam du ma gis du ma leen gàllankoor wuti leen ay borom kër bisub talaata mu départ di yanwaan ñëw Dakar jaar jaar euh, Gambie Conakry dégg nga ba yàlla dogal léegi mu nekk fa yanwaan ba jël bato bi dem ci benn dëkk bu ñuy wax Douala ci Cameroun la bokk wala bato ba escale pour mu war fee wàcc nag jëlaat fi bato pour dem euh, Gabon nee na ci bis escale boobu ci la wàcce ci biir dëkk bi di doxantu moom sëñ ma lëbën jëm dagara sol benn kilo nekk nag ponkal moo xam ne ni mu toll kenn mënu la ko wax day war sëñ Tuubaa te ñu wut a wax ren nag sëñ Tuubaa la gis ñaari Sénégalais yi wax wala nee na ma ñëw ba jebatu leen nga leen ah yéen da day Sénégalais ñu ne ko waaw ñun ay Sénégalais lañ ga gamoo lañ jógee tey ci suba ñëwoon fii ci dëkk bi am fii lañ fi doon lijjanti waaye yow Sénégal nga dëkk mu sëñ ma Lamine Diop ne leen waaw Sénégal ñu ne ko xam nga ko ne Ahmadou Bamba mu ne leen ah déedéet xaw ma ko de waaw Ahmadou Bamba day ab Sénégalais la comme ñun tubaab yi indi woon nañ ko Gabon jëlee nañ ko léegi Libreville ba yóbbu nañ ko léegi Lambaréné mun leen xaw ma ndax bëggul na ne xam naa ko ñu leen wax ko tubaab yi ñu jàpp ko di ko rek waaye nag ceebatu na leen ba laaj leen nu ñuy def ba def ga bu ñu def ma dem Gabon ñu wax ko bato bi muy jël ak heure ba mu ko jël ndax diggante bi soreewul nee na mu dem continuer di yanuwaan ñu koy fay. ba mu dugg ci bata ba ba ne saax biir Gabon ba mu agsee comme moom dégg na ci baatu Sénégal yi ñu ne ko jàllale nañ ko Lambaréné nag muy laaj yoonu Lambaréné nu ñuy def ba dem fa booba ñaar téeméeri kilomètres ak juróom-ñaar fi deux cent soixante-dix kilomètres diggante mag Liberté sëñ ma Lamine Diop Dagana da ko dox gis nga ba mu ko doxee ba agsee Lambaréné ba fekk sëñ bi ci taatu mango gi mu toog ba talaata gi dir si ci déwén la agsi la agsi ci taatu mango ba talaata ja delsee ca déwén tam jóge woon kokki guy ba talaata ja delsee la agsi ca tàttu ak si jub sëñ bi di raam di raam di raam ba fekk sëñ bi toog mu jël tànk sëñ bi teg ci kawam di bës di bës di bës mu yàgg sëñ bi nag ah Mouhamed waaw moo ko sa pastef bi rëy na de lii de defal naa nit lu gën a raw lii ma lii ma la defal te ña nga toog ci seeni lal day di ko bànneexoo lii la ko sëñ Tuubaa te téye ko fa juróom benn weer daa di koy bàyyi yi yabalaat ko mu dellu Sénégal na boo demee neel Seex Anta na ñëw fekk si ma fii ba maam Cheikh ñëw fekk na Sëñ Tuubaa ñu yóbbu ko Mayomba Mayomba nag xam naa kon moom deuxième partie lañ koy def ndax temps bi day xaw a yàgg ñoo ngi jégalu bu baax nag ci lépp lu ngeen di dégg ci ay rëq-rëq di sant yàlla bu baax te xam ne jéem la def rek ndax dañ ciy jaamu yàlla ndax yàlla dafa wax wa sakkir fa inna moom tanfa'ul neen te loolu wàllu communication la boo xam ne si lii dana ko mën a firndeel ndax jumtukaay la boo xam ne eh, lu baax a ngi ci safaan waaye ñun dañ ciy jël nag li nga xam ne Sëñ Tuubaa ko moom muy jàllale xabaar ñu mën ko méngaleeg aaya alxuraan bi naan wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wala tafarraqu wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin su ko defee en travers le monde ñëpp mën koo dégg ku ko dégg nag ñoo ngi ñaan loo ci gis muy ab rëq-rëq nga wax nu ko ndax moo ñuy dimbali ndax lu nu taatan ci ay mag yu baax la di ko wax waaye nag temps bi moo xaw a xat ba tax na kii mooy première partie bi nga xam ne fas yéene nañ ko sóoboo ci liggéeyu Seex Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ci yoonu géej gi pour biñ bëggee sànq l'islam euh, Sëñ Tuubaa taxaw ne l'islam du fay ci la wuto sallallahu alayhi wa ba tax mu jël sars yooyu ba dem na ba dikkaat ba génnewaat ko ba yóbbu ko gànnaar loolu lépp ci deuxième partie bi lay ñëw kon nañ ko téye foofu ci Mayomba ba deuxième partie bi ñëw wasalaamaaleykum wa rahmatulah